dañ duggu studio def son bi ma wo pak DJ bañ waxtan ci ma ne ko léegi euh, soobee yàlla samedi comme dama voyage ni samedi suma ñewé dina ñew comme ça ñu joko ben yoon ñu commencé clip bi ci la jéké jéki tok rek dégg mo mu nan bul nang ko la yàqal sa ulala mané na mé nak man li numu démé ni mais jël woyu jàmbur rek jël ko way ko ni han ah, te tàgguwoo boroom ah parce que imagine yow nga sonn ci sa way tëju di bind di sonn technique moo gën a jafe nag surtout technique créer way yomb na waaye am technique boo ko wayee ba mu neex nit ñi moo jafe ma sonn ci presque ay ay at benn jour ñëw rek ah xale bu ndaw jël way wi génnee noonu tu as vu voilà ku yàq sa olala bëgg a yàq sama olala bëgg a yàq suñu óola laa ñuy ak samay fan si ah léegi nag man loolu ñu ma ko protégé léegi presque am na am na trois ans am na trois ans tam même man sax après euh, bi ma demee BSDA doon waxtaan ak ñoom dañ ma xamal carrément ne moom way way bu mu mës a way protégé wu ko foofu bi ko ko laajee moom nee na Europe lay protégé ay ay soins tu as kon kooku nag jarul topp après après ma ne garaawul ah tàngaay mu sedd parce que man xam nga am naa ay woy yu bari yoo xamante ne xam nga du jeex am na yeneen yu dàq au la déglu leen cassette bi